donc xam naa Macky Sall bu baax a baax na arrêté yi ñuy def yi ñuy def yi c'est des mensonges ce sont des mensonges nañu liggéey seen liggéey réew mi dafa nekk réew moo xam ne réew mi ñëpp bokkal nañ ko organiser ñu liggéey réew mi yaa ma war a calmer yéen ñi ma defee ah yow de yow tamit mi ngi ak commandant mi ngi ak commandant boo demee yow problème day gën a day gën a doomu ndey moo lay wax dëgg nekk foofu n'importe qui yaa ngi si doon

tension bu gara fi am entre les militants de ak ki nga xamante ne mooy Mati saar ñaa gis nga ko mi ngi nii gars yi dóor ko ba daal di li nga xamante ne nii mooy kanam bi gis nga ko gis nga ko Mati Sarr nan la demee la nga def bañ dóor la quest gis ngeen ko ki nga xamante ne ni mooy Mati Sarr ñaa gis ngeen ko actuellement dañoo toj li nga xamante ni nii mooy jeu bi euh, jeu bi ah, lan la def nag bañ toj jeu bi nag ah, d'après information yu ñu dégg am na benn naataango bu ànd ak moom nee na dañ ko fekk ci oto bi bi ñuy duraate euh, militant wu Bougane yi ñu daal di koy attaqué l'autre aussi répliqué ne non loolu amul moom moo ñëw dugg seen biir di leen ruube ba ñu daal di réagir léegi nag doo xam kan ngay pointe du doigt mais li ñu mën a xam daal mooy actuellement fii tàng na trop diggante militant Bougane yi ak Maty Sarr Niang nga xamante ni chroniqueur la aussi gis nañu aussi collègue yi réagir nañu ñoom Ngoné Saliou ak d'autres collègues am yi nga xamante ne affaire bi da leen choqué ba réagir mu nekk affaire bu tàng fii ni nga xamante ni nii mooy voilà euh, cybercriminalité voilà ñu daam di leen doxatul beneen côté bi ñu a dem beneen côté bi jéem a jël réaction waa camp Bougane ñoom aussi ñu wax mbir bi nan la demee parce que ñoom ñoo tooñ wala dañ leen fekk foofu daan leen jéem a intimider lépp lu ci mënta am dinañ leen leeral pour le moment li leen mën a xamal mooy fii tàng na jër diggante les éléments de Bougane ak aussi yenn chroniqueurs yi ak yenn journalistes yi mu nekk affaire bu tàng voilà nekk na affaire bu tàng ci diggante nga xamante ni ñooy élément Bougane yi ak aussi les quelques chroniqueurs yi nga xamante ne ni ñëw nañ ba fii xam naa ne léegi léegi rek dinañ xool euh, kan lañ ci mën a jël ban intervenant lañ ci mën a jël mu def li nga xamante ne ni mooy la situation wax ñu affaire bi nan la demee kan moo tooñ. ba jël ah. ngeen militant ñi nga xamante ni ñooy bugaani ñoom instant yi nii bëgguñu wax nee il préfère ñoom ñu noppi. voilà l' essentiel daal mooy fu mu toll nii moom tàng na jër fi nga xamante ne nii mooy des euh, di euh, fene cybercriminalité ci avenue Malick bi gis ngeen ko mi ngi fees dell voilà nit ñëpp ñu ngi toog aux alentours di xaar li nga xamante ne nii mooy audition Bougane bi nan lay mujjee actuellement les militants de Bougane ñoom ñoo taxaw nii di xaar li nga xamante ne nii mooy audition bi nan lay mujjee. voilà c'est ça gars yi ñu ngi fi ñu ngi xaarandi ñu ngi xaarandi euh, affaire bi nan lay mujjee.